waaw salaamaaleykum gars yi maa ngi jaar cappaatuli bi la maa ngi nuyu ñëpp gars yi di wax nag bis bu mag bi incha allah le 25 lay doon le 25 novembre stade Iba o face à face Tapha Tine Boy Niang allah ñu jox ñëpp rendez-vous gars yi foofu ah képp kuy cappaatuli foo nekk gaan ah Pikine lay déparé bis ah. bus yi kaar yi njaga njaay yi sereer yi mooy loolu vélo yi pétin yi yëpp ay dem gars yi ah incha ñu wax ñëpp ñu jox rendez-vous foofu cappaatuli yëpp yëpp yëpp yëpp bàyyiwuñ kenn yëpp tëlu mag di diis i ko taaf cité pépinière cité 1 2 3 waxi naan 1 2 3 bàyyiwuñ kenn mafia yëpp gars yi ah tëngeet barñi gars yi mafia bi bàyyiwuñ kenn ñëpp nañ ñëw ñu takk corona bi ah ci jàmm nag ak salaam non violence jàmm ak salaam gars yi ah ñu dem def ambiance def neexal def fula ak fayda ak joma ah. bu jeexee rek dafay jeex ndaalaan bu dofee rek naa na koy faj waaw dafa leer salaamaaleykum mbokk internet Leewtoo TV di leen nuyu bu baax baax di am contentement ak mbégte janaw yéen chaque jour comme niñ koy defee lépp lu soxal làmb nee naa ne boo ñëwee fii ci Leewtoo TV di nga ko gis ba tax na tey dañoo am invité beneen invité ci naan ko Makhtar Ba dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu internet yi ñu waxtaan ak moom ci carrière li mu bëgg ci làmb li mu ut teg ma sa loxo rek ñu nuyu ko jëm ak moom ci biir sëñ bi maa ngi nuyu. maa ngi leen di fay. Euh, di nuyu euh, internautes ñi di nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp euh, mm-hmm. ci biir réew mi ak bitim réew. Mm-hmm. waa diaspora ñëpp fàttewuñ kenn. Mm-hmm. ku bëggoon xam Makhtar Ba kan mooy Makhtar Ba loo koy wax. waaw Makhtar Ba benn doomu Sénégal la doomu commune Fimela. nekk architecte de formation. di liggéey ci mbirum architecture ak bâtiment. nekk aussi secrétaire général benn mouvement citoyen bu ñuy wax Comeva boo xamante ne Awa Marie Coll Seck moo nekk ci bopp bi. ñu nekk sur le terrain nag depuis 2012. Mhm. voilà ci loolu bu ñu ñëwee pratiquement ñi jàpp du ñu dañoo for dañoo ko for ci wéyu bay mais ñi gis ne dangaa ngaa sam sa ndënd ngir nga xam ne mooy commune Fimela ci yan perspective nga nara doxalee dëkk boobu boo ko gañee waaw jërëjëf euh, question boobu kontaan naa ci torop parce que Fimela dafa di commune boo xamante ne potentiel bi dafa bëri. Mhm. Euh, xale yi fa nekk femmes yi jeunesse bi. nekk ay nit ñu am jom mais malheureusement xëy na yenn conditions yi ñu war a teg ci seen loxo pour ñu mën a gën a évoluer amuñu ko moo tax ñu am benn engagement politique bi ci élection locale yi ne li ñu doon def boobu ba léegi pendant dix ans ci biir mouvement citoyen bi di ko jagleel Sénégal bi yëpp pourquoi pas ñu jagleel ko waa Fimela pour que suñu expertise suñu expérience suñu carnet d'adresse suñu programme mhm. ñu jébbal leen ko pour que dëkk bi mën a avancer vraiment waaye sama maam da doon naan balaa nga naan naam ne fa fu ne ni ci campagne lañ nekk ku ci nekk dangay wax li nga xam te ni moom nga naral bis boo gañee loolu nga nar a li nga xam ne mooy population bi fu mu ne nii yan projet nga teg yan projet nga teg ci sa campagne. waaw euh, population Fimela yi nag ay weer a ngi nii maa ngi waxtaan ak ñoom ci programme bi. programme bi ñeenti poñ la. bi ci jiitu nekk santé wér-gu-yaram. parce que de santé yi foofu amul médicament. lal yi doyul et cetera donc yooyu ñu am benn programme bu ñuy indi pour changer xar kanamu laa ci domaine santé beneen bi secteur d'activité boo gis fim Fimela am na mbéy am na sàmm am na napp am na tourisme am na hôtellerie waaye benn ci ñoom doxul ni mu waree dox parce que liñ ci war a def defuñu ko boobu tamit ñu war a changer euh, jigéen ñi ñu am benn point entier boo xamante ne dañ ko jagleel jigéen ñi tout tànk bi euh, xale bu jigéen bi maam ji ci kër gi ñëpp dañ leen di jël en charge pour que ñu mën a nekk dans de bonnes conditions. dernier point bi di éducation éducation bi boo ko déggee tamit éducation sportive ci la bokk. jàngum lekkool bi ci la bokk euh, jàngum alxuraan beeg diine bi ci la bokk. donc euh, éducation boobu tamit ñu bëgg cee boole infrastructure. parce que xam nga fii euh, dinañ fi waxtaanee waxtaanu làmb ci kanam. waaye bépp sport boo gis te defuñ ci infrastructure yi war. du mun a dem kanam. donc ci suñuy projet am na projet phare boo xamante ne par exemple stade municipal la ci biir Fimela parce que laa lu mu rëy rëy rëy laa lu mu am potentiel am potentiel ci jamono jii nii ay bàyyal kese fa donc ñu fas yéene indi ay infrastructure de de dernière génération pour que vraiment xale yi di ci mën a mën a exercer wu bu baax ba pare générer benn économie bi parce que infrastructure dafay dafay suqali réew dafay dafay suqali gox dafay créer ay dynamique économique ku xam film la xam ne dëkk bu culturel la ba tax na lamb yu bëri dafay am Pape Thialis Faye daan na fa daal dina fa dem tëgg fa lamb waaye jeunesse su film la daal di tëgg lamb li nga xamante ni mooy le 20 ak le 21 novembre première édition la mise bi 1 million 600 daal di koy la koy duppee bu ñu la ko duppee lan nga yëg. waaw kontaan euh, balaa loolu ma bëgg a remercier Thialis bi nga tudd léegi. Mhm. parce que vraiment moom tamit mu ngi liggéey liggéey bu mucc ayib mhm. ci réew mi. au niveau national ñu koy dégg tamit au niveau international li muy def ci euh, jeunesse su Sénégal ñu ngi ko ci remercier euh, di wax ne que affaire bi noonu la c'est-à-dire que nit tamit i faut nga amal njëriñ sa askan te loolu ñu ngi koy rafetlu bu baax bi ñu ma tuddee drapeau bi euh, comité local de gestion de la lutte ñoom ñoo ma ko tuddee te comité boobu comité wu arrondissement bi yëpp la génn na commune Fimela nekk arrondissement Fimela dañu xool tamit ñoom gis ne que man wax dëgg yàlla dama passionné ci ci mbirum làmb euh, làmb nekk sama cosaan cosaanu séeréer donc ñu tuddee ma drapeau bi ma kontaan ci lool parce que dama ci gis sama bopp carrément euh, xale yi ànd ak man tamit gis ci seen bopp euh, préparer journée bi nag xam ne que samedi dimanche bi vingt 21 ragal naa ne dinañ soxla pousse muru areenu Fimela bi parce que kenn du fa rek hmm? waaw dañoo nar indi dañoo nar a indi mobilisation wala da ngay def avant guubu campagne xam nga man campagne ça fait mois bi mu ko tàmbalee. Mhm. parce que campagne weesuwul dem ci nit ñi di waxtaan ak ñoom di def porte à mhm. waaye weekend bi weekend du feetu la. Mhm. xam nga séeréer dafa fonk làmb. làmb dafa nekk ci dareetam. Euh, mu tombe nag mu nekk drapeau boo xam ne daf ñu soxal. ñu bëgg ñëw wane suñu bopp def délégation fu ne la ñu nar a jóge nag. dinañ jógee euh, commune bi 16 village moo fa nekk waaye ku tardé doo am place bu bés ba nee naa la muru muru muru aarenu Fimela bi dañ koy pousse pour nit ñi mën a xëy. ñu gis gox boobu mu bari yu bari mën naa ne champion yu bari dañ fay génnee ba ci alentour bi boo gisee bu demee ba Mar Mar Fafaxoo ñu ko fekk Kalmandoor Grand Manick ak yeneen champion yu fay génnee bis boo nekkee maire ci yan anam ngay mën a jàppale mbër yooyu ak xale yi nga xam ne ci làmb lañ yaakaar ñu mën a dem ca kanam. ku mel ni ku mel ni calme maa ngi koy nuyu au passage euh, amoon na fi combat euh, lu yàggul dara euh, nekk xale bu am jom comme waa commune bi yëpp gis nga commune bi bu ñu ko tegee suñu loxo li ñu fas yéene ci investissement parce que tamit il faut ñu fàttali ne commune li ngay jot ci ressource jóge ci état doyul pour nga mën développer commune bi il faut nga dem jële ko feneen injecté ko ci commune bi xale yi nag ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi yëngatu ci wàllum sport am yaakaar ci sport xam nga sànq maa ngi lay wax waxu waxu stade municipal. Mm-hmm. waaye dinañ fexe non seulement xale yi euh, di mën a entraîner wu bu baax. Mm-hmm. mais di mën di génn commune bi. Mm-hmm. di mën di gis leneen léeg-léeg sax dina laaj ñu tukki génn Sénégal. Euh, dina laaj ñu utal leen benn visibilité bi pour que au niveau national ñuy mën di am ay ay combat ñuy mën di am tamit ay ay partenariat ñoom ci seen bopp. parce que euh, mbër yi ak sportif en général ay porteurs de voix lañu. Mhm. donc ñoom ci seen comportement am na loo xamante ne euh, suñ ko ci gisee. Mhm. dinañ sawar ci jox leen loo xamante ne dina dépasser cadre cadre mhm. tàggat yaram. ci noonu nag comme ni nga ko waxee lii bu ko néew ma bu ko gox bi dégg mais bu ko mbër bi dégg jégee dinañ sawar ci lool nga nekk maire ndax kuy dem ku ne ku ko jàppale la bëgg mbër yi fa nekk ñuy bëri. est-ce que pare nga pour def defa écurie boo xam te ne day nekk benn écurie mbër yëpp nekk fa nga mën leen jàppale dañoo ne mbooloo mooy doole. waaw xam nga organisation boobu. ci ñoom la des. Mhm. man fi mu toll nii dama leen di jox rek loo xamante ne suñ ci téyee ñoom. Mhm. dinañ ko mën a organiser nu ma leen neexee. Mhm. ñoom ñooy seet ndax dañ ci bëgg def écurie. ñoom ñoo xool ndax dañu bëgg a organiser woo neneen loolu ci ñoom la des. waaye man ci sama wàllu bopp en tant que maire incha allah buñ ma falee. dinaa fexe ba ñoom ñu mën a gis seen bopp ci sport bi ñuy def. Mhm. parce que mbër ku am jom moo ko mën def. Mhm. bëri dafa metti mhm. dafa laaj entraînement dafa laaj investissement dafa laaj nga sacrifier lu bëri. parce que soo nekkee mbër am na lu bari loo xamante ne doo ko mën def parce que bëri dafa fiir. dafa laaj tamit nga investiru ci biir investissement boobu li ci am solo mooy ñu am retombée économique. maanaam am ci koom-koom am ci lu ñu téye. parce que nit boo amee foo toll ci sa àdduna. am ci looy yëngu dafa am loo ci yaakaar pour yóbbu si biir kër gi man dinaa dinaa dinaa fexe ñu am toutes les conditions pour que ñoom jom bi ma gis ci ñoom fulla ak fayda bi ma gis ci ñoom su ma ci su ma ci dugalee sama loxo ñoom ñu mën a dem ñu mën a dem mu ngi noonu nag yéen ko dégg teg na 4 points li nga xam ne moom éducation santé ak yeneen ak yeneen yaakaar naa ne ku wax réew rek lu koy doxal lool ci la bokk fu mu nekk nii élection yi jege si na jege si na ku ñu wax dañuy naan politiciens dañuy diggee rek mais li ñuy diggee duñu ko def est-ce que yow ñi ngay àndal ak ñi nga xam ne yaa ngi wax yaa jàpp ne yaa ngi leen convaincre ci xam nga boo déggee wax boobu c'est que sax xëy na nit ñi. Mm-hmm. ñooy ñooy ñooy def lii tax mm-hmm. ñi leen di nax. Mm-hmm. parce que nit bu la waxee lu yenuwul maanaa di nga xam ne lii yenuwul maanaa. bu la waxee lii bu la waxee lu yenu maanaa tamit di nga xam ne lii yenu na maanaa. politiciens yi en général bu ñu la diggee. loo xamante ne yow ci sa bopp xam nga ne kii xamul yoon bi wala xamul fu ñu koy defee war nga xam ne lii yenuwul maanaam wante ñun dañoo fexe non seulement programme bi ñu nas dañ cee boole nit ñi parce que tamit munoo jëlee sa programme fale ne da nga koy ñëw defal ko nit ñi da nga ciy boole nit ñi ngeen waxtaanee ko ñu xool point yi nga xamante ne am na ay difficulté ñu saafaraandoo ko ensemble ce qui bu suñu borom defee ñu toog déroulé bi mise en œuvre bi dafay yomb parce que li ñu leen expliqué dafa yenu maanaa xam nañ fi ñu koy defee budgétiser nañ ko wax nañ leen exactement naka lañ koy defee donc fi mu toll nii dañuy jàpp ne dootul sax ay dige dafa di loo xamante ne dañ koo togg ba mu ñor war koo yekk yekk bi nag balaa ñu koy def ñu ne ñu egsi leen pour ñu ne ñu egsi leen le 23 janvier 2022 bu soobee yàlla bu population Fimela yi defee li war ñëw voteel ñu bu soobee yàlla yekk bi rek mooy des ci noonu nag temps bi ñu may daf ñoo xaw a xoj tuuti lan ngay tàggatoo wala laata loolu lan ngay wax population la ak ak lu làmb. waaw di leen sant di leen gërëm waa Fimela aw ma seen fay parce que vraiment ay nit ñu baax lañu ay nit ñu am ouverture lañu ay nit ñu ñu ñu dëggu lañu aussi. parce que commune la boo xamante ne wax dëgg yàlla bëri na ay bañkat. Mhm. bëgguñu lu yomb bëgguñu ay naxee mbay. Mhm. te loolu man tamit dama ciy gis sama bopp parce que man noonu laa mel. bëgguma lu yomb bëgguma loo xamante ne yenuwul maanaam euh, làmb ji nag man dama nekk passionné de lutte bépp làmb bu mu munti doon man tout tànk buy bëre sax dinaa taxaw seetaan leen parce que dama bëgg sport de combat euh, di am yaakaar aussi nekk làmbu Sénégal dina gën a développé lii dina gën a évoluer am na ci ñoo xamante ne ñu ngi ciy dox ay tànk yoo xamante ne ci sens boobu la mm-hmm. ñuy encourager ñëpp di wax tamit euh, grand public bi mm-hmm. nañ fexe ba ñi nga xamante ne ci jamono ji xamuñu làmb wala bëgguñu làmb wala dañoo ragal làmb mm-hmm. ñu fexe ba ñu ñëw di seetaan si làmb mm-hmm. bokk ci làmb ji parce que làmb ji yaatu na ay valeur kese laa ci gis parce que sànq nee naa lu ko amul jom du bëre donc euh, làmb ji nañ ko organiser nañ ko war a organiser ñëpp gis ci seen bopp parce que làmb nag Sénégal moo ko moom euh, maa ngi doon wax bee passé tournoi CEDEAO bi mu amee ak yeneen yi paase sax deuxième bi la ñuy laaj kan mooy deuxième kan mooy troisième waaye mbirum bëre moom xam nañ ne Sénégal mooy premier mm-hmm. donc mu nekk suñu yëfu bopp ñu fexe nag bañ koo yàq def ci li ci war pour que mu mu continuer di avancer du ma wax nit acteuru làmb ku bëgg làmb te du ma xam moom affiche bu mag bi am ñëpp xam nañ ko benn bi la Tapha Tine Boy Niang naka nga gisee affiche boobu kii kooku combat dàqu ko hmm? combat boobu hmm. combat dàqu ko ñu ne ñaari mbër ay bagarreur lañ boo boo doon joxe favori ci bagaar koo koy jox. non xam nga làmb day am fu mu toll munoo joxe favori. Mhm. munoo joxe favori. Mhm. Euh, Tafatine ndaanaan la ci ci ci làmb. Mhm. am na gabari njool na am na ralonge mën na bëre. wane na ko. Boy Niang am na vivacité. xam na box jàng na box donc combat boobu xanaa ku ko bëgg a pronostiquer xëy na ah xëy na yaa ma ëpp xam-xam <laughs> waaye kooku moom ku ci war a wax favori moom li ma mën a li ma mën a pronostiquer moom mooy ne làmb jooju moom làmb ju neex a neex lay doon mhm. te yaakaaru moom tamit mu doon ya làmb bu bu bu nar a yàgg mhm. yaakaaru moom mu yàgg boo xefee doo gis jéelu bi mën nga mën nga xef sax waaye bul xef ñaar yoon <laughs> mu ngi noonu ma koy remercier baax looy tàggatoo waaw maa ngi leen di sant di leen gërëm mhm. yéen tamit ci liggéey euh, bu rafet bi ngeen di liggéey boobu ba léegi euh, vraiment euh, ñu ngi leen di ñu ngi leen di suivre saa su ne di leen encourager di leen wax tamit nekk fi ngeen jàpp foofu la et bu soobee yàlla suñu boroom dina def ba xëy na site bi dem foo xamante ne kawe na seen jort muy noonu di ko jaajëfal bu baax moom Makhtar Ba dañoo ne gën a jege gën a yey moom laa xam kon yàlla jël mairie Fimela daal di koy liggéey comme ni ko dama ñun làmba ñuy dundal bu làmb demee ci kanam ñu am xaalis suñu poos yi fees della ñu mën a kontaan Pape Thialis Faye mën a bëgg ñu liggéey ko liggéey bu baax waaye noonu naa da jox leen dig daje le 25 novembre Iba Mar Diop face to face Tapha Tine Boy Niang du nar a yomb dama bëgg ngeen ñëw en masse sangu ba set xel lu neex toq daal yu nice ñëw estaat amul buuxante amul saagante amul dóorante ñi ñëw bégal askan bi waajal la 19 foofu daal di toj kon ba beneen yoon beneen événement ci beneen jàkkaarloo beneen daal dañ daal di wax ak moom ay cax. Ah! salaamaaleykum gars ñu ngi woo ñëpp le 25 novembre ah Iba Mar Diop feesu fees Tapha Tine Boy le 25 novembre incha allah ñu ngi ci woo fans yëpp di ci woo am di jàmm yi xam nga ñu teel a ñëw 18 ñëw fees stade bi xam nga Tapha ñëw defati différence incha allah.